Euh, bah Diakhaté ak ki nga xam ne nag euh, ñu ànd ak Bah Diakhaté ak euh, imam am na kenn ki nga xam ne ñëw nañ fi pour mën a wax waaye nag wax nañ ko nii na bañ a wax voilà ñu mën a am li ñu li ñu mën a wax ci information mooy verdict bi joxe nañ ko ñu xaar tuuti ki nga xam ne nag moom mooy maître El Hadj Diouf euh, bu fekkee euh, souhaité na wax ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci verdict bi wala kenn ki nga xam ne nag bokk na ak euh, ba Diakhaté parce que ki nga xam ne nag moom moo doon moom moo doon wax ci turu imam ñun woowuñu ko il faut mu nekk li nga xam ne nag li ñuy préciser journalistes yi woowuñu kenn fi ni moom moo jël initiative bu boppam nee na dafay ñëw di wax ci ki nga xam ne nag mooy affaire euh, imam bi voilà affaire imam Cheikh Tidiane Ndao mais gis nañu ni ñu ànd ak Bah Diakhaté ak waaw mais mais dégg mais loolu laa doon expliqué problème ñu voilà dañu am journalistes yu nekk ci biir la décision qui a été rendue par le juge mhm. naam am na ñoo xamante ne ñi ngi fii ils sont dans la presse am nañu l'information mais dafa am loo xamante ne moom moo fi xewoon c'est-à-dire nous attendons la sortie des avocats yi nga xamante ne ñoom tamit ñu ngi woon si biir ñu joxe li nga hmm. xamante ne moom mooy cette décision là hmm. hmm. léegi nag lu ñu leen mën a wax mooy aujourd'hui euh, bi na jël li nga xamante ne moom mooy euh, euh, suñuy responsabilité nous on est la avec personne nekkuñu fi ak qui que ce soit on n'est pas partisan on est juste venu ici pour donner li nga xamante moom mooy la bonne information léegi nag moom laa doon wax nañu jël suñuy responsabilité xam ne que li nga xamante ne moom mooy cette décision là léegi nag lu ñu leen mën a wax mooy aujourd'hui à travers ce genre de choses là euh, presse bi na jël li nga xamante ne moom mooy euh, euh, suñu ay responsabilité nous on est là avec personne nekkuñu fi ak qui que ce soit on n'est pas partisan on est juste venu ici pour donner li nga xamante ne moom mooy la bonne information léegi nag moom laa doon wax nañu jël suñuy responsabilité xam ne que métier bi li nga xamante ne moo ko tënk mooy éthique ak déontologie ah. concernant la diffusion de l'information dañ koy jaarale d'abord par la vérification avant ñu koy soog a jox askan bi nga xamante ne moom la ñu yaakaar naa ni suñu confrères yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci biir euh, ñoom la ñu war a jox li nga xam ne mooy primeur bi ñu wax ñun ndax ñoom am nañ ko directement laataa information bi ñu muy fuytee àgg si ñun ñoom nag bu fekkee mën nañu jege wax ñu lan la ñu ci biir en attendant maître El Hadj parce que mën maître mën na ñëw comme mën na bañ a ñëw parce que le premier Euh, li ñu gën a ci li ñu gën a bett daal mooy moment bi ñu leen woo ñoom avocat yi xamal nañu ni ñoom dañoo dem te affaire euh, dañ ko renvoyé donc euh, keroog nag gis nañu maître El Hadj Diouf tardivement ay 21 heures 20 heures 21 heures moins génn na di wax ak presse moo tax presse bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci biir yaakaar naa ne suñuy confrères yooyu noonu mën nañ am confiance si ñoom ñoom ñu ñëw taxaw fi ñu ne ñu lii ak lii ak lii la ñuy décider beneen tam beneen affaire tam am na léeg-léeg dinañ atte nit nekk ci biir salle juge bi wax. yéen mi nekk ci biir salle bi doo leen dégg lu muy wax yaakaar naa ni euh, bu fekkee ne mun nañu daal di def li nga xam ne moom mooy haut-parleur pour ñëpp ñu nekk ci biir salle bi mën a dégg décision bu juge bi di rendre dina baax trop léeg sax di nga gis ñaari nit génn ci salle bi ñoom ñëpp ñu am des des versions yi nga xam ne day day différé kee di wax lee keneen ki wax leneen donc euh, pour loolu noonu bañ am ci li nga xam ne moom mooy suñu rôle ñun comme niñ ko waxee booba b ba tey mooy nañu bàyyi xel bu baax a baax ci lépp li nga xam nag ñu ngi koy wax ñu bañ a dugg ci manipulation yaakaar naa ne loolu c'est très important ñu préciser ko ñu xaar ki nga xam ne moom mooy l'avocat de Bah Diakhaté di maître El Hadji comme moom moo ñu tàmmal souvent di ñëw di wax ak journalistes wala ñu jël suñu confrères yi bu fekkee am nañu ay information ñu daal di ko euh, fësal en attendant ñu am réaction avocat parce que mun nañ fi toog di xaar avocat duñu am réaction avocat parce que benn voilà benn avocat rek lañ mun a am nee verdict bi li ñu joxe mooy ah. euh, trois mois ferme amende leen cent mille francs mu nekk ay information yoo xamante ni ay euh, suñu mbokk taskati xibaar yi nekkoon ci biir mhm. euh, ñoo ko daal di joxe relaxé leen ci li nga xamante ni moo di euh, lañ doon ah. toppee ci wàllum Ousmane Sonko xam naa dañuy xaarandi rek maître El Hadj Diouf génn gën a joxe information yi mu gën a am mais nañ jàpp ne pour le moment ñoom ñaar ñëpp tëj nañ leen 3 mois de prison ferme daal leen amaan ko ci nekk 100000 loolu mooy information bi. voilà xam nga loolu moom moom lañ doon wax euh, sànq ba tey ne ñun nañoo taaxirlu tuuti. parce que am nañu ñi nga xam ne nag euh, si ñun lañ bokk ñoom lañu gën a amal confiance que mhm. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk des partisans parce que keroog xaaw nañu yóbbaale ñeen ci taskatu xibaar yi. bu ñu génnee di jubilé di wax ni euh, libre na libre na fekk yow. Euh, yeneen confrères yi bàyyi ñu xel seen morom yi nga xam ne ñoo nekk si le terrain parce que au même moment que ñii di jubilé di wax ni am nañu euh, liberté boo demee déglu direct dañu dañ wax ni nga taaxirlu bàyyi xel bu baax a baax parce que procès bi mu ngi continuer mm. yaakaar naa ne c'est une précision ndax procureur bi tam dafa sakku woon à ce que ñu daan ki nga xam ne mooy Bah Diakhaté ak Cheikh Tidiane Ndaw imam mm, mm, Cheikh Tidiane Ndaw li nga xam ne mooy six mois six mois ferme ak cent mille francs d'amende waaye waaye gis nañu loolu loolu la njëkkoon wax ah gis nañu ni bii pa ñi nga xam ñoom ñooy attee topp ñu procureur bi par rapport ak li mu demandé woon mm. euh, jour jour bi nga xam ne nag euh, suspendre nañu euh, procès bi pour mun a jox verdict bi tey donc tey mun lañ leen wax ni am nañu information ni trois mois la lañ ko daan mm-hmm. léegi cent mille francs yooyu nag voilà lañ leen amende mm. loolu mooy information bi nga xam ne am na léegi en attendant comme ñu koy ni ñu koy defee souvent mm-hmm. yaakaar naa ne fii benn Euh, camp d' avocat moo mun a am mooy euh, ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao mm-hmm. ñu xaar maître El Hadj wala kenn ki nga xam ne bokk na ci pool d' yi ñëw jàkkaarloo ak ñun di di di wax ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci client bi mm-hmm. waaye en attendant Albourakh ngeen sànq li nga xam ne nag moom lañ doon wax te yaakaar naa ne ñun moom dañuy daal di jël lépp moment ñi nga xam ne ñëpp ñun la ñuy soxla dañuy ñëw ci ñun dañuy wax seen seen problème waaye bu ñu gisee ni amuñu li nga xam ne nag euh, xaar nañ ko ci euh, justice yaakaar naa ne journalistes yi ñoom ñooy les premiers yi nga xam ne ñoom la ñuy fi sujet parce que day ngeen sànq ni waa ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Bah Diakhaté ak Cheikh Tidiane mel ni ñun ñooy attee ñun ñooy joxe verdict ñu ngi ñuy wax ni yéen ay euh, ay ay ay ay ay ay compil ngeen ay Pastef ngeen bokk lii ak laa tu vois loolu yëpp war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax en attendant am kenn ki nga xam ne nag dinañ ko jël voilà suñu naataango yoo ñoo nekk si biir te moom ñuy xaar mais xibaar daal fi mu toll mën nañ ko wax mooy li nga xamante ni càkkuteefu euh, parquet bi li mu euh, de euh, fausse nouvelle xam ne moom mooy kii bi nu mu tudd sax amende cent mille francs léegi waaye nag dañuy xaar nag avocat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir di leen layal ñu génn defe naa ne mooy gën a Euh, kii waaye daal loolu daal loolu daal la ñu fay force si wéwu ah. moom ne moom loolu la ñu <laughs> fu mu nekk nii moom la kii waaye ñu nekkoon. sa nopp baax na. xaañu woon na noonu imaam daal di ñëwaat kon ñu daal koy rek jox li nga xamante moo di micro yi. daal di wax ñun woowuñu kenn fii lañu taxaw ñoom ñoo ñëw waxal seen bopp. Ouzin wàccal ko Ouzin wàccal micro. dañuy préciser dañuy préciser waxuma ak yéen quoi en la fois passée moom lañ mujjee woon jël. moom lañ mujjee xam nañ ko bu baax quoi. mais ça dafa loo xam daf fi xewoon. loolu la bañ mu xewaat fii voilà.